min qabliha tibta fi dhilaali wa fi jaajëf mbokk yi nit jaageen jëf di leen dalal jàmm Cheikh kër Dieng xibaar yi ñu jagleel gàmmu international bu Medina bàyyi wàccaay bi nga xam ne nag kilifa yi ñu ngi ci ngir fexe ba ñoŋal mbedd yi gën a taaral it dëkku diine bi ci zahir ba nga xamante ni pèlerin yi dina ñëw amal seen gàmmu ci jàmm delluwaat ci jàmm mu ngi gën di fës ndax li nga xam ne moo di commune bu kawlax di mairie bi am na mbedd yu yaatu yu bëri yoo xamante yokkaat ko ngir gën a yombal dem beek euh, dikki bi soxna ma jigéen Diouf mooy adjointe au maire bu ñu dénk mbirum assainissement te jamono jile ñu nekkee ci Medina Baye. ndigal li dafa jóge ci monsieur le maire Serigne Mboup ndax euh, lim ñu wax mooy fépp foo xam ni pèlerin da fii ñëw nañ ko defar ba nga xam ni képp ku ñëw ci dëkk bi wala ñi dëkk ci dëkk bi nañ nekk dans de très bonnes conditions pour mun a passer mawlid bi ci jàmm donc ci waxtaan nag comme dañu am commission si lañ am benn élément bu ñu ciblé fii donc biñ fi ñëwee ñu def fi état des lieux barki démb ñu gis ni vraiment fii moom ni mu dégradé dafa ëpp te suñ ci teelut a jóg te nee nañ oto yi continuer yëpp fii la ñuy jaar donc ma ni dina indi problème donc ci lañ xëy déployer moyens yëpp gis nga def nañ fi presque plus de vingt charge suuf lañ fi def indi nañ fi ay pelle mécanique ñaar yii di gradé yii di sëkk vraiment ñu defar ko ba nga xam ni population bi ñoom ñi fi nekkoon ñëpp kontaan nañ parce que am na fi benn trou boo xam ni dafa demoon ñu baal ma ci kàddu gi dem ba am ay sax nit ñi di dëkk ak moom parce que xamul nan lañ koy def donc biñ ko yëgee ci la ñu oo UCG comme dañu nekk en parfaite collaboration ñoom aussi ñu ñëw déployer seeni moyens vraiment yow yaa ngi gis fee ni mu mel defar nañ ko ba mu rafet sëkk nañ pax bi defar nañ yëpp donc vraiment ñuy wax ni rek li ñu monsieur le maire sant mooy agir pour le bien-être de la population saa su ne nag vraiment loolu duñ ci jóg mukk ci la ñu nekk incha allah prochain cible bi comme li may wax rek dañu compter six grandes rues yoo xam ni yëpp a délabré wu yii dafa am ay poto poto te neexut a jàll te six grandes rues yooyu liñ ci gis mooy que ni vraiment moitié ñi nga pèlerin yëpp mënuñ xëy te jaaruñ fa donc bi ñu jógee biir Médina Baye et alentour pareeguñ fa nag mais dañuy cumuler dañuy def une pierre deux coups ñii ñu ngi biir Médina Baye mais dafa am ñoo xam dañ leen extraire faire vraiment pour jéem a sillonner ces six ko ba nga xam ni képp ku fa dugg daal di nga xam ni vraiment ñii na macha allah. askan wi nga xam ne nag ñoo dëkkee ci yenn xàll yooyu nga xam ne defaraat gi ñoom la ñeel wane nañu seen mbégte jàpp it ne même bu dul gàmm gi sax mbedd yooyu la commune bi defar ko waru gar la ndax gàllankoor yu métti la doon jur ci seen dem ak dikk te nekkit jàmbat yi yàgg a yàgg seen i kàddu Aline Badara Diop moo ko taataan. waaw Omar Traoré nekk habitant ci quartier bi wax dëgg yàlla lii li maire Serigne Mboup def wax dëgg yàlla ñun dañ am satisfaction bu baax baax baax parce que lii depuis temps Ablaye Diack ba léegi mi maire bu fi jaar dem nañ ci yow xeex nañ xuloo nañ dem nañ police dem nañ ci yow mais amuñ ci satisfaction mais kon tey Serigne Mboup bu ñëwee tey defal ñu lii ñun dañ koy remercier di koy gërëm di koy sant wax dëgg yàlla waruma marché bi rek mais mbedd yi yëpp la defar te fii li fi jaar ci gan macha allah kontaan di mu gën ñoo jàppale ci marché bi parce que xam nañu sëriñ boobu loolu moom compétence am la ñun xam nañ ko liggéeyam la kon loolu ñun dañ ko ciy gën a ñaax incha allah rabbi yàlla na ko yàlla dimbale man maa ngi tudd Mbaye Dieng ba pare nekk un conseiller municipal maanaam comme ni ko ñëpp waxee rek dañ koy rafetlu parce que lii dafa nekk loo xam ne nii mën nañ wax ni maanaam sax si jamono Ablaye Diack ba léegi mu fi mais mosuñ see am résultat mais wax dëgg yàlla ñuy wax ni bii maanaam la jaaroon parce que mu nekkoon un handicap xam ni wax dëgg yàlla ko doon sax wax dëgg yàlla biñ ñëwee ba nga xam ne sax la maire <laughs> Serigne Mboup moom moo ñëw jéem a résoudre maanaam sax la situation di maanaam sax di marché Médina Baye Niass tur bi El Hadj Omar Wagne la waaw di ko rafetlu parce que ñun dañoo bi dañ koy wax moo tax xëy na bu rajo bi ñëwutoon fii ba wax li ñu gis li nga xam ne mooy maire bi Kaolack def na ko tey ànd seeg UCG bon parce que soo seetloo mbedd mii nii semaine ci ginnaw nit mënul fi jaar ak tank nit mënul fi jaar ak auto mais tay ji ni bi ñu paree oto mën fi jaar nit mën fi jaar képp ku bëgg jall jàll nga jall té do jaar ci ndox lolu luñu ñuy salier la xeyna maire bi ñoo gam mu ngi leen di dog di fekk fi newet mu ngi leen fi dog di fekk mais liñ jot def ni wax dëgg yalla ñun apprécier nañ ko té ñu ngi ñaan lolu sax parce que so seetloo xeyna na dégluwuñ sax ay nit di leen orienter ñom ñoy xolal seen bop mbedd yi lu baax ak lu bon mban mbedd lañ wara sëkk ñu defal ko seen bop man biñu ñëw fi owuñ ma dama tok gis ñu indi suuf ma tok gis ñu indi mank auto mank mank ko ma toog tok ñu gis ñu indi sen pel bi commencé tassaré manam nekul dañ leen di influencer wala dañ leen di o ne leen ka leen intervenir ñoo intervenir mais ñom sen bop def nañ sen bop wëral sen bop gis yi nga xam ne ñu def ko te ñetti mbedd yi ma sékk yépp def nañ fa lu melni moy kon man mom amna satisfaction total, liggéey bi nga ne bu Kaolack ñu ngi koy liggéey jamono ji ci biir Kaolack na fi ci Medina Baye ci préparation gam Medina Baye هلال بدا للناظرين جماله lu soxal wàccaayu gàmmu Medina Baye Niass gu atam 2022 ci la ñuy desandi fi nga xam ne moom moo di bayaal bi nga xam ne fala li gën a fës ci gàmmu gi di amee yeesal gi ak jagal jagalaat gi ñu ñu ko dénk ñu ngi ca ànd ak it jàpp nañu ne fi l'équipe diir nag baas bi nga xam ne moom na ñu teg ci kaw ween yi moom soppi ko léegi mu jot ndax ab diir boo xam ne def na ko fi Baba Niang mooy président bi ñu dénk mbirum équipement ak tente ci Medina Baye ci biir COMAF Euh, commencé nañ tente bi depuis démb jàpp ñu waaw tey xel lool waaye am naa yaakaar ne ren nii déwén moom ci biir fur lañu fekk taw dëgg waaye ñu ñaan yàlla balaa déwén ci heure bi yàlla mën na ko indoon tente bi yàlla mën naa andi ay doomu aadama ñu mën a participer bañ mën a changer base bi base bi ñu andi am naa yaakaar ne fii ñetti at wala ñeenti at changé ko loolu nag lu ñu préparé dès maintenant la avant ñu agsi parce que ñu euh, ñu mën nañ ñu def seen participation ba ko te 2010 ak léegi ba volonté ku ci mën a ñëw participer ñu mën a am changement ci tànk boo xam ne ñu dindi tànk changement am réseau ci biir bi mu nekkoon bàyyi yoo xam gàmmu du lu jafe ci ñoom ndax mu ngi bëgg a def ab diir boo xamante ni at mu nekk ñu gàmmoo gàmmuwaat comme ci wàccaay yi at yu weesu rek lañuy ñu dee tëralaat atum ren gi waaye taxawaayu nag fédération nationale jamiyatu ansaaru diin lu ci fës la Serigne Aliou Cissé Niang kenn la si vice président yu COMAF nekkit njiital ansaaru diin ci département bu Kaolack. fuuglu ba si sangu tedd bi nga xam ne ku ko fuuglu tedd ku ko fuuglu da nga tedd ndax yàlla moo maye yonent bi noonu képp ku yëngu ci ay mbiram yàlla dana éwénal mbir ñu gërëm Baye mi nga xam ne moo xàll yoon woowu ñu am ci moo tëral ansaaru diin bii nga may laaj ne nañ ko tëralee nii nosee ko nii ba mu agsi ci liggéeyal gàmm waaw ah, liggéeyal gàmm nag d'habitude ñun dañ am benn planning rek xam ne ñun su weeru gàmm teree planning rek boobu rek la ñuy teg bi ñu tegoon daaw tegoon ko daaw jéeg la teg gëm ko yokk ansaaru diin li ciy wàllam moo yore lépp lu ci aju ci finance mooy joxe bépp dërëm boo xam ne ci organisation materiel ak waajaay waajal gàmm gi la jëm moom moo koy joxe koy joxe it taalibe yi lay wax na len ñëw len sëriñ bi mëna a ñu liggéeyal ko ko am dërëm joxe ko am ñaar dërëm joxe ko am lu ko ëpp joxe ci loolu lañuy liggéey at bu jot tàmbali nañ ngi def collection yi di collecté di versé ci trésorier bi lépp lo xamné suñ bras technique bi ñuy wax comaf mu xam ne moo amee liggéey matériel bi lépp lu mu soxla ta xaaliss diko def rek ansar di lay wax ne ko indi kat dañoo bëgg def nangam ñu joxe commission moy comaf commission bu nekk lim wara saytul Médina ci organisation gam gi da fay defal plan d'action budgétiser ko ne nangam lay jar ci xaaliss ñoy bari la la waaye dañuy def rek saa yu jotee commission bu nekk yi priorité ku ci ne rek lim tolloog ñi di ko koy jox ñuy liggéey ba yëf yi taxaw en tout cas li ma mën a tontu ci tontu boobu nga laaj waajaay ansaaru diin bi mooy matuwaay yi mu war a jël yëpp pour lim ci war a joxe mu joxe ko jël nañ ko président national Cheikh Mouhamed Mounhamina moo engagé wu ci loolu ñun ñooy ay liggéeykatam ci terrain bi ñun ñooy jëwlinam ba pare ñun ñun la chargé zone siège bi zone siège bi mooy Medina Baye li ci wër donc ñun waxuma sax ñooy dalal fédération yi moo lay dalal ci ndigali président gi ni jagleel fuglu gàmm nag gannaaw kër Baabul Hadara di Seydi Aliou Ibnu Hassan tey jii ajaratu Ngoone Njaay mu ngi ci kër gi nga xam ne lu ëpp ci waa yi bu ñu ñëwee fa la ñuy maanaam njabootu Thierno Hassan suñu ndaw li daje naa fa ak Serigne Taha di am kontante bu baax a baax a baax a baax tamit ndax képp ku bëgg bàyyi di nga bëgg gàmmu ndax kenn ku ne xam na bàyyi nu meloon ci gàmmu meloon ci bëggeel ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. tukkulóoru baay bu ñu ko waxee ci dëkk bu sell bii di euh, Medina Baye xel daj Cheikh Thierno Hassane Dème mbokk yi salaamaaleykum dal leen ak jaamu ci seen rubrique bii la di fuglu gàmmu ñuy waxtaanee tey kër Thierno Hassane Dème ak wàllu dalal gan ña. daan gàmmu fii di ubbi buntu Medina yi ubbi buntu kër yi buntu néegi yi lépp lu am ci alal simmeeku ci lépp jox ko yonent bi sallallahu alayhi mu am ñoo xam ne mu sant leen ñu nekk ay dagalkatu gan bokk na ci borom borom kër gi nga nekk nii muy Thierno Hassane Deme wax na ko ne ko desal fii Madina nekk njaati gi képp kuy wax Haalpulaar bal képp ku ñëw rek nekkal njaati géem kër Cheikh Thierno Hassane Deme bu ñu ko waxee ala foog xel daal di dem ci li nga xamee ne moo di màggal Katmiya waaye bu ñu sukkandikoo ci kàddu yi njaboot ga ñu ne itam dayo boobee ñu jox wàccaayu Katmiya bi bu ko raw nag la ñu jox lii di gàmmu ndax nag la muy tegtali ak di ko tekki eh, ca ñoom ñun nag Katmiya gi buñ du lu wajal guddi gogu rek la ba legi ni gan yi kat me ñi ngi dess ci kër gi am na ño xam ñi ngi dess ci yenn barab yu leen dalaloon yitte googee ñu jox màggaluk gane sik adina gën ji mbindeef sallallahu alayhi wa sallam taxna ñu ne buñu eggé ci gamu gi ci kër cierno googee nak do xamé njaboot gi ak talibé yi ndax ñom ñepp ño jonjoo liggéey ba loolu nak moo tax ñun ñepp tamit non lañ koy fuglo xër bi nga xamné cierno mom la amon ci gamu ngeen digalu serigne bi xër gogu mo moo fi nekk ñëpp dañuy génn seen néeg yi jox ko gan seen i wàllu lekk ak yooyu tamit xalifa bi ci boppam Cheikh Kabir ak Cheikh Habib ak Cheikh Abdoul Baqi ñoom ñooy tiim séddale bi da nga di joxoñ fan la palaat yi war a demaat loolu noonu lépp ñoom ñoo koy defal seen bopp ñu topp di seen gannaaw di enu ay palaat di ko yóbbul gan yi mbokk yi xibaar yi nii jagleel wàccaayu gàmmu international bu Medina Baye yu tey fii leen ci yem xanaa rek fàttali leen fi lekk gàmmu ay fan yu néew ci des ndax samedi juróom-ñetti fan ci weeru octobre atam 2020 2022 lay tombé nañ ci yegg ak jàmm. waajil billadi talabu ya ahmad ma asaabi alxiyara